fii nag dëkk bi na a jekk jàng alxuraan ak jaamu yàlla moo taxoon mag dox ba ñëw fi sanc ko bi ñu demee bàyyi noog dëkk bi njàng mi ñu nu jàngaloon ci la nu nekkoon ba yàlla def nu defoon fi daara ci mi ngi toll ci ñeenti at ñu def fi benn bâtiment bi xale yi di ci jàng ak xale yi nga xam ñoo bokk dend ci dëkk bi yàlla def nag ren marmite de cœur ñëw fi ànd ak monsieur le maire ne dañu noo bëgg a euh, saytul daara ji ba mu gën a dëppoo ak jamono yokk ko encore jullikaay bi it nga xam ne mooy jàkka ji moom it ñu defar ko ba mu gën a dëppoo ak jamono wax dëgg yàlla it noonu rek lañ fi ñëwee bi ñu dikkeet fekk li nga xam ne nii bëgg nañ ko te mënaluñ ko suñu bopp ñu ne dana leen ci dimbali seen kem kàttan bi ñu dikkee nañu ma ko waxee woon defar nañu daara ji ndax nun dañ koo kii woon amut woon raaxuñu ko woon waaye raax nañu ko peentir nañ ko mbaar bi ma taxaw ñoom ñoo ko fi def senge ko raax ko peentir ko jàkka ji it wax dëgg moom it màggatoon na ñoom ñoo ko raaxaat peentir ko ba tubaarkalla macha allah ah am na yit lu ñu fi joxe ci gone dongay daara yi jox nañ leen ay téere jox nañ moom daal wax dëgg indi nañ fi teraanga ah di sant yàlla di leen sant di ñaan yàlla li ñuy mébét yàlla na yàlla defal leen lu kawe seen joor di leen sant nag wante nag surtout monsieur le maire ndax nit dafa ne wala fu dane bu lëg-lekkee aloom na ko gërëme coy marma de kër xamuñu ndaar nguy mais nag maire ci boppam moom moo bëgg goxam bëgg askanam yàlla def na mu dikk gis daara ji xam ne lii bu amoon moom def ci mu gis ko ko ji defal mu indi ko fii bi ñu dikkee ànd naa ñoom ñuy ñëw mu laaj ma ni ñu ko bëggee ma wax leen ko ni nu ko bëggee woon it def nañ ko noo ngi sant yàlla di leen ci sant ndax maire moom wax dëgg yàlla man daal li ma koy ñaan yàlla na ko fi yàlla yàggal defal ko fan wu gudd ak wér ndax am naa yaakaar ne bu yàggee ci sunu kanam nun daanu gis sunu bopp ci réew ndax ku bëgg boppam la ku bëgg askanam la ku am welante te it leer na ma ne moom li ñu yaakaareen ci moom ba fal ko mi ngi ci kon yàlla na ko yàlla kàttanal te yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jëfee rek comme li ñu alquran wax man lam yuskuri naasa lam yuskuri laa yonent bi sallallahu alayhi daf na ko santu nit doo sant yàlla ndax yàlla li muy def mu ñëw ci doomu aadama daf koy jaarle ci ay doomu aadama waaye ñam koy jaarle dafay tàggat seen xol ba danañ ko def fañ ko war a def kooku bu ko defee la war mooy ñu sant ko gërëm ko ci taxawaay bi macha allah te it nag ne lii rek moo fi nekk def ci yoonu yàlla rek wala def ci leneen alhamdulilah rabbil alamin bi nga xam ne yéen yéen a ngi def ci yoonu yàlla. Mm-hmm. Euh, di gërëm bu baax monsieur le maire comme ko Baye Mbaye waxee ak euh, ñi nga xam ne ñoom la ànd ak muy moom de kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci taxawaay bi macha allah lii moom danañu gën a encouragé ñu nit ñu gën a yokkaat taxawaay bi ndax ku xam fi ñu nekkoon démb ak fi ñu nekk tey tabaarakallaahu waxuñu woon nekkuñu woon ci ay condition waaye yu baax waaye tabaarakallaahu gën ngeen ñoo yokk ndax lii jëmmal na ne alquran kat ba léegi am na ñoo xam te lii gëm neen na alquran moo fi nekk gëm neen nit ay julli leen gëm neen nit la leen yàlla wërsëgal ci seen wërsëg fañ ko war a def ba ñu ngi koy def fañ ko war def kon loolu ñu ngi gërëm bu baax ci taxawaay boobu di ñaan yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral yàlla yokk leen euh, ba li ngeen mébét ngeen def lu ëpp lu koy seen jot di leen gërëm it ci seen jëf gërëm loo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul yemukaay ndax ñun de fii mooy suñ tiitar fii mooy suñ lépp ndax mooy suñ cosaanal maam dogal ñun ay sët kese moo fi des fi di sant monsieur le maire ci jëf ji mu ñu defal ndax cant gi ñu ngi koy tàmbalee ci mar bi nga xamante ni moom la ñuy njëkk a di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér di leen ñaanal seen taxawaay yàgg seen man yàgg lépp lu ngeen nisar yàlla na yàlla jàpp ci ba mu yàgg foo xam ne kawe seen jot yàgg foo xam ne sax yaakaaroon ngeen ne mënu faa yegg yàlla na yàlla def ko ci barke yonte yàlla Muhammad barke alquranu karim ñu di leen sant di leen gërëm tubaarkàlla jërëjën jëf jërëjën jëf